asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rekk jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk mu am ay kàddu yoo xam ni dama ko dégg léegi mu jóge ci gémmiñu sëriñ xaadim Bousso mu ko doon joxlanteek Baara Njaay ci njalbeenu kàddoom sax wax na ni du nawleem mës naa leen fi wax bu yàgg ne leen nawle nag du juddu du dara ja jikko la mën nga bokk ak nit ndey ak baay benn biir te du doon sa nawle ndax baatu nawle moom ci boppam firi na boppam naw mooy fonk kon sa nawle mooy ki la fonkle dara fonk say jikko ba di ko roy nga koy roy fonk say bëgg-bëgg fonk say bañ-bañ kon kooku mooy sa nawle su dee nag da ngeen a bokk ndey ak baay boo xëyee suba jëm ne mu xëy sa ba jëm nale kooku du sa nawle su fekkee ne nag yéen a bokk li ngeen di def ay nawle ngeen kon dama yaakaar ne xaadim dafa juum lu ko Baara Njaay wax nag xawuma ko moom waaye li mu ko wax de mel na na nawloonte lañu ci waxante lu ñaaw lu muy wàññi xaadim nag xawma ko euh, baara nag xawma ko waaye li ma xam daal mooy moom xaadim moom jam na boppam paaka loolu tubaab di wax harakiri japonais yi ñoo koy def boo amee gàcce jam sa bopp paaka dee nit dana koy faral di def ndax mer mi nga xam ni moom la meree baara àgg na ba ci mu dugal ci atteb sharia lu mel na bakkan dafa mel ni <coughs> dafa delloo loo xam ni nee na baaraa defoon bëgguñ ci woon dellu si di yeññi li waaye nee na dafa mës askaneela boppam keneen ku dul baayam xaadim wax ne loolu mook doomu njaaloo ñoo yem maanaam ku amul baay yamul ci sharia déedéet te mer warul tax nga jël atteb sharia di ko wëndeel di ko yóbbu foo xam ni fii nekku fa ndax yow baraana luñ lay dégg nga nekk ci jotaay ay nit di la laaj ngay tontu teg ko ci shariatu nabil Mustapha kon soo toogee ba am lu la metti wala nga am lu la neex wala nga tiit wala nga ragal wala ba tax lay àttee sa bakkan jam nga sa bopp paaka ndax su ëllëgee mën ngaa àtte nag waaye est-ce que dana amati ñu lay gëm parce que dañu naan dafa ragal lii moo tax waxul lii dafa mer moo tax mu wax lee dafa rus kii moo tax mu waxe ko nii loolu baaxul ci koo xam ni kii dangay ubbi nit ñi ci wàllu xam-xam ak lu mën a xew waxal li am moom laay wax toujours man sama gémmiñ gii am na baat yooyu jombale naa ko cee génnee benn bi ci jiitu nag mooy fen di wax loo xam ne lii bu feeñul tey feeñ ëllëg lii nga xam ni moom nga wax daal jëme ko baare njaay ci tomb boobu moom wérul nit wax ne diwee sama baay taxul mu nekk doomu njaaloo du am darajaam mukk sore nañu li mu def mooy fen fen wi nag taxul yàlla bu rëbb itam rëbb bi mooy yow nga gedd saw askan gedd leen won leen ginnaaw gedd sa baay won ko ginnaaw waaye nit sax mën na dem baayoo nit nit mën na dem baayoo nit kon xanaa moos ñiy maye seen doom woo nit ne ko yow laa ko bàyyile xanaa kon dangaa dindi njureel ga ko juróon déedéet déedéet dindi woo ko dangay rafetal nit it dana xemmam nit xemmeem jikkoom xemmeem melokaanam xemmeem yiwam xemmeem njekkem ba daanaka mooy baayam man sama dongo yii ci sama kër papa la ñu may wax te juruma leen parce que samay doomi bopp ñoo may wax papa mu yóbbaale leen maa gën a xam ni juruma leen ñoo gën a xam ni juruma leen ñoom kon mbir dañ koy yóbbu fa mu wér yam boroom xam-xam du def comme nii nga xam ni noonu la sénégalais yi di doxante saa yoo waxee li leen neex darajay malaaka nga am mën nañ laa yóbbu sax ba ci darajay yonent mën nañ laa woy tagg la mën nañoo jël sax seen alal di la ko jox saa yooy wax lu leen neex bës boo bàyyee wax li leen neex benn boo benn bës laa wax benn bës li nga waxoon li weesu lépp dañ koy gas suul jël mbubum iblis solal la di la saaga di la xas di la tànc di la wax lu leen neex te réew a ngi miix àgg foo xam ni fii chafa xufratin mina naar seen tànk yi ci buntu safara lañ ko teg ndax jikko yu bon ya taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni wax ne moo tax ñu yónni ko pour mu defar jikko yooyee yëpp yàqu na fii bi ci gën a garaaw te yéen ñëpp def leen ci attention mooy nit ñi ku leen neex ñu saaga la foofu la alkandeyam app ci nga jur seen baay app ci nga mag seen baay app ci nga bokk ak ñoom seenu askan ko ñaar ñu bokk benn géeño wala ñu bokk benn ween dañuy saagante ndey fii ci internet bi yéen a ngi koy gis benn baay ñoo ko bokk di saagante ci internet bii gis ngeen ko di dem ci tribunal ndax alalu àddina di dem di jëlante yat di dóorante di xaañante kon niveau bi nga xam ni fa la réew mi toll ku ci tiitul doo nit wax ju bon joo xam ne ji duñ maanaam amul luñ ci luñ ciy luñ ciy segg loolu rabu àll yi sax duñu ko def xar ak xar bu ñuy mbëkkante seen ñeenti béjjën yi ñooy daje këng ngay dégg parce que loolu lañu xam mooy combat loyal menn mi nag mën naa ëpp doole moroom ma waaye xeex ba du génn xeexu béjjën yéen nag xeexub béjj nag xeexub làmmiñ xeexub bët xeexub tànk ñaaw teef bu nekk da ngeen ko jëflanteek seen noonu jomb leen dara kon war nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax ndax rabu àll yii di dox ci biir kër gi ñu leen di xont ñooñu sut daraja loolu nag ab imaam moom warut a yéegee boppam foofu ab mufti buy jàngale di yeete wërta nangu boppam foofa la mu war a def mooy xam ni ku boot bukki xaj baw la ku boot bukki xaj baw la nit ñi daal buñ la gërëmee daaw buñ la xasee ren warulaa metti waaye nag wër ngaa teey lool buñ lay gërëm ren jàppal ne bi ñu la xottilee tubéy caaye jaa nga cee wet ga mi ngi ñëw te caaye ja day tilim kon man dara feesatul sama bët dara bettu ma ku kuy woote di xaataraayu yépp maa ngi ne tekk ba xam fi ma jëm fan la ak yow parce que loolu lañu xam tant yaa ngi wax li leen neex seen xarit nga yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yu tedd ya la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladina utul kitaaba min qablikum wa min alladina ashraku azan kathiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al umur sadaqa allahu al azim yàlla waxoon na yonent bi ak saxaabaam ne ko dees na leen nattu nattu yu metti ci seen alal ak seenu njaboot boo nekkee ay saay-saay dañ lay agressé physiquement di agressé sa njaboot mën laa dàq ci sa liggéey wala ñu dàqulu la wala ñu lay tegal ay impôt yoo xam ne laaloo ca jegewoo ca façon xeex yooyu mooy fi amwalikum wa anfusikum ak yu ni mel waaye nag wala tasmaunna min allazina utul kitaaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kasiran nee na ko da dégg ci ñi nga xam ne ñii dangaa dikk indi lu bees lu wuuteeg la doon yor ak ñi nga xam ne ñii dangaa dikk fekk ñuy jaamuy xërëm ak seeni xërëmi maam nee na da nga dégg ci ñoom aw lor wu baree baree bare bare bare bare façon bu ne ay tuumaat ay xasteeg ay saagaak ay tàncak lu ne dañ ko dégg saxaaba yi dañ ko dégg waaye yàlla wax ko ne ko lu ngeen di muñ boole kook ragal yàlla nee na loolu mooy daraja yu kawe ya azmil umur mooy jikko yu kawe ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq jikko yu kawe yooyu nag waxkatu lu ñaaw boo yemeek ñoom di leen wax lu mel na liñ lay wax kon yow bokkatoo ci ñi nga xam ni dañoo jëfee azmil umur ndax muñ ga waxuma muñ nag ay caaxaan de jàkkaarloog nit mu lay këll-këllee waxuma lool de <laughs> di la jaay dooleeg di la fontoo am na foo xam ni moom bu fa bëggee àgg moom lu golo xam na ko boote doomam waxuma lool de waxuma muñ yooyu de waxuma di la jaay reewande wala mu lay fekk sa kër wala ci mbedd mi di la agressé waxuma loolu lu nekk am na nees ko mën a faje waaye am na loo xam ne lii nag moom faw da nga koy muñ parce que da ngay bañ a wàccee sa bopp daraja ju tolloog ja ñu nekk ñoom ci suufee di xaste di saagaa di ta tuumaale di dem ci internet di la wax lu leen neex ñooñu loola danga ko dul nangoon nangoonteeg ñoom nga yam ak ñoom ndax mbaam bu la weqee nga weq ko yaag mbaama yam di yaag mbaama yem kon loolu moo waroon a doon taxawaayu boroom xam-xam boo jàkkaarloo koo yaakaar ne yaa ko ëpp xam-xam koo yaakaar ne tamit yaa ko gënug juddu te loolu wérul moom annaasu min jihatil ansaabi ak faahu ak faau abuhumu aadamu wal ummu xawaa kon gëneel moom xanaa ñu bokk ci leneen lu dul aadama waaye ku bokk ci aadama ak rek moom <laughs> dangay ngay gëne nit ki la yàlla suñu borom waxoon at taqwa inna akramakum inda allahi atqaakum lu dul loolu ku la ne maa la ci gën jarul tontu ndax xam nga yow bu baax yaay kan moom war na xam boppam moom itam ko defee daal ñu ngi koy dénkaat moom mu gën a bàyyi xel ci loolu te gën a rafetal di ko dénk ñëpp nag di ko dénk baara itam moom ku ko dégg na ma ko jottalil kàddu yi ñu moytu di xeex xeexin wu ñaaw wax loola fi nee na ku sa xuloo neex saa yoo giifee sa mer gàcce topp la xaadim yow boo xasee xaadim xaadim njaay yaa ngi xasaale sa bopp Baara Ndiaye bu xasee xaadim mi ngi xasaale boppam est-ce que ay nit ngeen est-ce que ay nit ngeen wax day rafet ngeen moytu waxante yu ñaaw yi fii réew mi daanaka koo fi waxal xam na lépp man fii toll ni coow lee bari rek kenn ñemewu ma xas ndax ku ma xas mën naa laa bañ a tontu waaye mën naa wax koo xam ni kii la mu lay wax àddina day tukki parce que fii biig ci guddi lépp a xewoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.